ñom dañuy def lolu ba tey fa tabarakallah lolu nek affaire bu xamne ne tamit affaire bu yeme la ñom ba ci seen pas-pas bok na ci dañuy magal bu baax a baax place bi wax Karbala ak Najaf dañuy dem ba fofu sax di tibbu ci suuf sa di wala pour bu julli di ci sopp seeni jë ndax nee suuf sa mu labé ak nuñ ko fonkee ba tey ashiatu limamiya yazcumuuna anna rasul sallallahu alayhi wa sallam nassa nassan jaliyan ala imamati aliyin radiallahu taala anhu bada baadahu wa annahu huwa wasiyuhu ba tey ñoom ashiatu limamiya ñoom nee nañu ba tey yonent bi dafa dénkaane woon dénkaane bu leer bind ko ne bu fi jógee Seydina Aliyu moo fi war a toog loolu tamit nekke na affaire boo xam ne ñoom loolu lu ñu gëm la te ne moo waroon a nekk moo tax ñu ne képp ku fi toog gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku dul Aliyu rek sa toogin baaxul ñoo ñi nga xam ne tamit ne wax naa la ko léegi ne ñoom nee nañu alquran bi ñu yor dafa bëri lu ci manqué te nee nañu alquran mu ngi war a nekk juróom-ñaari junne aaya te alquran bi ñu yor mu ngi nekk six mille deux cent aaya ñu la des nag mu nga ànd ak imaam booba nga xam ne mooy imaamu ali bayti ba nga alquran ba nga xam ne moom la seydina ali dajale woon la ca des foofu la nekk fa tabaarakallahu mbokk yi lii nekk na lu doy waar te ñëpp kat ay jullit la wuyoo ñoom daal nee nañu daal an al bay na mawjuda baynana naqisun wa muharraf wa anna al saxiix al سيظهر آخر الزمان مع المهدي المنتظر ولم يتح لنا الإطلاع على هذا المصحف نيوم دال نينيو القران الكريم بي يور ديكو جانغ غودي اك بتيك ديكو جولي نينيو دو القران بو مات سك القران بو مانكي لا كامل بمك بمك بو بوغا خامني مولا سيدنا علي دافرون كامل بو موي بو وير تا كامل بو مهدي المنتظر موكاي اندي imaamul mahdi yu mooy ñëw te buy ñëw mooy indiwaale alquran boobu ah, mbokk yi man de waaru naa ba tey ñoom am na aay yu xam ne ci biir alquran tamit dañ koo corrigé ne aay yi tëddewul noonu ma jox la ci benn rek mooy boo demee ci suratul baqara aaya mooy wa in kuntum a'udhu ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin misli nee nañu aaya boobu liñ ci bind ci kaamil bi dafa manqué dañ ko wàññi ndax ñoom nee nañu lu ci bëri ci aaya ci alxuraan bi Aboubacar ak ak Omar ñoo ko wàññi ci alquranu karim macha allah loolu doy na waar trop ñoom nee nañu aaya bi nii la tëddee wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya waaw boobu beneen aaya la nee nañu boobu tamit niñ ko bindee baaxul ñoom lan la wax nee nañu da aaya bi nii la tëddee walla laqad ahidna ila aadama min qablu fi muhammadin wa aliyin wa fatima wal xasan wal xusayn wal aima wal wa zurriyatihim fa nasiya aaya bi gudd na de xam nga yàlla dafa wax ne walaqad ahina ila Adam min qablu fa nasiya yonti yàlla aadama yàlla dafa won ak mom bam koy dugal aljana ne ko nag garab gi bul ko lal aadama fàtte ko ba lal garab ga ñom nak bi ni la walaqad ahina ila adama min qablu ñun yàlla dégg ko nañu euh, delante won nañ ak yunti yalla aadama ci bu yagg ci klan fi muhammadin wa halin ci mbiram Muhammad ak Ali ak Fatima ak Hasan ak Huseynu ak aima yi nga xam ne dinañ nekk ci ginnaaw imam Aliyu ah, ci ay sëtam waaye nag fanasiya ñu daal di koy fàtte ñoom loolu la ñu wax xam naa ne daal aaya bi ne aaya bu njëkk bi daal moom neex na moom xam naa ne wa laqad ahidna ila aadama min qablu fa nasiya ca suratu taaha waaye daal am na différence lool ak walaqad ahidna ila adam min qabl fi muhammadin wa aliyin wa fatima wa xasan wal xusayn wal aima min duriyatihim fa nasiya seet leen nag mbokk yi lii nekk na ay affaires yu xam ne yu doy waar la ay pas-pas la xam ne pas-pas yu kenn xamul pas-pas yu kéemaane la waaye daal wallahu taala alam ñoom bokk na ba tey nee nañu bokk na ci saar boo xam ne indiwuñ ko ci kaamil bi te ñoom ñu yor ko mu tudd suratul walaaya maanaam saaru wilaaya nguur ñu tudd ca nag aaya wilaaya yi nga xam ne nii ñoom ñoo concerné Seydina Aliyu radiyallahu taala anhu ni lañ waxee saar bi dañ ne mooy yaa ayuha allazina amano amino bin nabii wal waliyi اللذين بعثناهما يهديكما يهديانكما إلى صراط مستقيم نبي وولي بعضهما من بعد وأنا الحليم الخبير إن الذين يوفون بعهد الله لهم جنات النعيم والذين إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين فإن لهم في جهنم مقاما عظيما إذا نودي لهم يوم القيامة أين الظالمون المكذبون للمرسلين ما خالفتم المرسلين إلا بالحق وما كان الله ليظهرهم إلى أجل قريب وسبح بحمد ربك وعلى وعلي من الشاهدين ñoom nee nañu saar bi noonu la tëdd fa tabarakallah muy tamit lu xam lu doy waar la mazhab bii na nga xam ne ñoo génne saar wi ne ñoom saar wu bokk ci alquran la te indiwuñ ko ci kaamil bi mooy mazhab bi nga xam ne ñoom dañ ne ñëpp ñu dul ñoom rek yéeféer la mboolem jullit yi ci àdduna ay yéeféer la ñoom rek ñoo nekk ci kaw njub fa tabaarakallah yàlla nañu yàlla yërëm fal muslimuuna fi ra'yihim kuffaarun xaakimuhum wa maxkumuhum fi nazarihim ñii àtt ci jullit yeeg ñi ñi ateeg imaam yeeg ñëpp rek ay yëfër lañu ñoom loolu la wax ñoom nag li leen sóob ci loolu mooy ne yajcaluuna al imaana bi imaam ali radiallahu anhu wa min baadihi min abnaihi juz'an min al iman ñoom nee nañu boo degee ci xaaju ngëm yàlla yi li ñuy wax ne xaaju xaaju ngëm yàlla yi ponk ngëm yi juróom lañu ñoom dañ cee yokk nee nañu bokk na ci juróom benneel ba mooy dañoo war a gëm ne Seydina Aliyu ak ay sëtam ñooñu ñoo war a nekk ndono yonent bi sallallahu alayhi nee nañu boo gëmulee loolu rek yi ci des yëpp dara baaxu ci ñu ngi ko jàppe daal kal imaani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wal qadr فمن لم يؤمن بالأئمة من أهل البيت لم يكن مؤمنا ولذلك كفر الصحابة الذين قالوا بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان وكفروا هؤلاء الخلفاء لأنهم أخذوا بزعمهم ما ليس لهم من الإمامة ñom dal nenañu kon képp ko xamné ni gëmulo li ñu wax la do wala def lo ko ak ay sëtam ay njabootam ñooy doon yonent bi sallallahu alayhi ñoo war a nekk xilaaf xalifaam ñooy imaam yi nee nañu képp ko xam ne ni gëmuloo loolu rek yéeféer nga moo xam ngay Aboubacar wala ngay Omar walla ngay keneen ko xam ne nii yaa ngi ci beneen yoon bu bokkul ak ñoom bi ñu nekk looloo tax nag ñu ne kon jullit yi nga xam ne ñoo paase ak jullit yi fi nekk yépp ay yéeféer lañu allahu akbar yàlla nañu yàlla yërëm yàlla rek moo mën a yërëm yal nañu yàlla yëm te teg ñi ci dëgg allahuma arina al xaqa xaqan warzuqna tibaa wa arina al batila batilan warzuqna jinaba wala tajalhu multabasan aleyna fa nadilla yal nañu yàlla teg ci njub wan ñu njub te teg ñi ca yal nañu yàlla musal ci jàng saxal ji ci njub ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi nañu xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mu waxoon dara dañu ci gis nga mbir mi ahlu sunna ak ñoom seen différence leen rek la mooy ci wàllu pas-pas bi ci amee différence muy masala xubbu ali bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam wa muwalaatuhum wal ixtijaaj bi ma wara bi ma raw rawahu rawahu aimatuhum anhu wa majtahadu fii seen différence leen rek la mooy ñoom cofeel gi nga xam ne moom la ñuy woote ci ahlu bayt rasul sallallahu alayhi wa sallam ak niñ leen war a méngoo ak ni ñu war a jëlee seeni see seeni seeni ifta di ko jëfandikoo ak seeni ijtihaadaat yi ñuy def nee nañu foofu la différence bi nekk waaye boo waxee yàlla gëm nañ ne yàlla am na gëm nañ ne yónni yàlla Muhammad yàllaa ko yónni waaye dañuy jël nag Seydina Ali tafsal ko ci moom ndax borom bi subhaanahu wa taala xam nga boo xoolee Seydina Aliyu radiyallahu taala anhu digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax Seydina Ali bi mu nekkee xale bu ndaw lañ ko jox yonent bi sallallahu alayhi mu yor ko mën nañu wax ne saxaaba yi ñi ci bëri ñëpp jaar nañ ci kéefër wala jaar nañ ci beneen diina bu dul diina lislaam Seydina yi rek mooy ki nga xam ne moom moo juddu te mosul jóotal xiram mosul jaar ci yooyu yonent bi yaral ko boppam sallallahu alayhi wa daan bokk ak moom benn lal bu ñuy tëdd di ci fanaan yonent bi daan ko teg ci dënnam mu tëdd ci kawam nelaw mu nekk ko xam ne tamit bu yonent bi salaa salaam tëddaan moom moom wax yu di wàcc mu koy teewee yu bare bare bare bëri rek jege googu mu jege yonent bi salaa alayhi moo tax nag ñoom ñu dema dema dem ba mujj gi yu ci rek ñu ne lul bi rek Seydina Ali moom la war a doon fa tabaarakallah yàlla nag bu ñu fàtte ne waxoon nañu ne ngëneel moo koy jox ku ko neex gis nga diina lislaam yonent bi sallallahu boo seetloo dafa ne woon euh, sama borom mosul jibril mosul dañ li ma dénk sama dëkkandoo ba ma yaakaar ne sama dëkkandoo ñoo may donn gis nga loolu daf ko wax ni zahiriyan waaye batiniyan boo xoolee xolafaa um yëpp amul ci kenn ku xam ne doomam la wala ñoom ñëpp ay ay ay ay nit la yoo xam ne ñii ñoo bokk askan ñeneen ñu bokkuñu xeet Abu Bakar Omar Osman, Ali rek la ci mbokalet ñi ci des yëpp daanaka bokul ak ñom fami te ñooñu yeb ay ndonom la ñoko ko kon nak donul nek ki nga xamne ni mo juddo moy domam rek moko wara war ci mbir bo waye mbiru yalla la yalla moko tan rek def ko ko neex su doon lolu yonent yalla noox domam ji nga xamne mom la won nan ko kay yek ci gal gi ñi dem mu bañ kon kooku doomam la te moo koy doon waaye mbir mi nekkul ci njureel waaye ci yàlla la nekk subhaanahu wa taala xam ne daal ñu xam ne daal ñoom ak ñun suñu pas-pas lu ci bëri ñoo ko bokk dañuy saxal ne yàlla mooy yàlla yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam yàlla la maanaam dinañ wax laa muhammadun rasulullah kooku nag ku ko xas ba wax rek ah la ca des moom yàlla daal a xam yeneen ci des ay wuute la ni nga xamee ne rek buñ la buggee nettali dëgg dëggantaan nga mën a comprendre chia euh, ak ak ak sunnit yi mooy comme Sénégal gi boo fi taxawee rek tarixa yi ni ñu mel da ngay gis ko xam ne nii nee na man jullit laa waaye tarixa tijaaniya laa bokk kii ne man jullit laa waaye tarixatul muriidi ya nekk kii ne man jullit laa waaye laahini ya laa keneen ki ne man wahaabi yi laa keneen ki ne man xaadir kenn ku nekk rek wax la mu nekk terewul nag bu ñu demee ca laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ñoo fay daje waaye nag am nañ ay wuute wante ci bànqaas yi wuute wante yooyu nag daf ci am ñu xam ne seen wuute dafa dem ba génne leen nag far ci diine ji ndax saa boo demee ba ne alquran baaxul te yàlla ne maa ko wàcce maa ko aara bopp saa boo demee ba manqué le ko rek kon yow am na lu fàq ci sa diine lu xam ne ni bànqaas boo xam ne génn na la daanaka ci sa diine naka noonu noonu la amee ci tarixa yi am na fi ci tarixa yi ñu xam ne dañuy taxaw di jox seen sëriñ ma xaama yàlla wala ñuy wax lu xam ne nii mbiru yàlla la wala ñu jël ba garaatu yonent bi sallallahu alayhi jox ko seen sëriñ yooyu yëpp ay erreur la yoo xam ne daanaka moog yële benn la moo taxoon yonent bi sallallahu alayhi ne ne euh, sama xeet daañ tàqalikoo juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett juróom-ñaar fukk ak ñaar yëpp safara lañ jëm benn ba rek mooy dem aljana yàlla nañu yàlla boole ci benn bay dem aljana ñu ne ko waa benn bi dem aljana mooy ñan mooy ñi nga xam ne mu ne leen mooy ñi nga xam ne dañoo jàpp bu baax ci li ma leen fi bàyyi woon te mooy alquranul karim bi kitaabullah ak sama sunna man yonent sallallahu alayhi wa sallam laa nag ak sunnatu rasul sallallahu alayhi wa mooy li nga xam ne képp ku ko génn rek génn nga topp ak koo mën a doon nag ci la ñuy jàpp moom lañu gëm ah keneen ku xam ne yaa ko gëm tamit yaa ngi bokk ci xeet boobu waaye keneen ku xam ne ne gëm nga ne alxuraan wérul wala alxuraan dafa manqué wala Aboubacar euh, yéefar la wala kii la la wala këli la la su boobaa da ngay dugg ci bànqaas boo xam ne bànqaas boobu mën na la yéefarloo fa tabaarakallaa dafa nekk thème boo xam ne ñemewuñ ci xuus baax ku dégg ni ñuy wax sax di nga xam ne dafa dangereux li ñuy moytu dafa bari ndax booy xool di tëb ay pakk yaakaar naa ne sa doxin du du jekk moo tax ni niñ bëggoon waxtaanee demee ko sax du ko du demee ndax dafa bari yu ñuy moytu bu baax a baax a baax di wax ne daal yàlla nañu yàlla may dégg ak topp yàlla nañu yàlla jubal yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla yërëm ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam nañu moytu ëppal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu